Diouf euh, Diouf Diouf tey nag sama sama rakk laa gisee la Abdou Salam xam nga moom saa yu ñu gisee <laughs> ak yi nii wax. bële passé am na yu ñu waxoon de ba coow bari woon na de mais mais mais ci loo ne. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm baax a baax a baax. naka dëkk bi. ay dëkk baa ngi nii hmm. jàppal benn. kañ nga Côte d'Ivoire. waaw Côte neex na lool. Hmm. waaw Côte d'Ivoire moom wax dëgg yàlla macha allah neex na ñu daje fa. Hmm. mu neex lool yàlla nañu ko yàgg daje. yàgg ko fekkee. yàgg caa dem. ñun ñëpp suñu borom defal nu gudd fan ak wér gu yaram. waaw di bëgg ci yéen loolu la. sant suñu yaay ji Ajaratu Ngoy Fall. waaw Ajaratu Ngoy Fall nit ku baax la. ak El Hadj ay nit ñu baax la ñu. Mm-hmm. nit ñu bari valeur. Mm-hmm. waaw Soxna mm-hmm. dafay nit ku baax nit koo xam ne référence la royuwaay la. nee naa loo mën a wax ci moom ba dajeeg moom. boo boo boo boo ko moom xam ni. nit ku baax nit ku baax la. loolu am waaw looy looy def Sénégal heure bi dama Gambie. lu may wuti Gambie. ah Gambie. di toj lan laa fay uti Gàmbi de bu ma fa dem xanaa kenn rek moom fa war a yóbbu muy waali ndax at ma jot ma fekk ko Gàmbi mhm. mu def ak man joo xamante ni si su ma ñibbisee Sénégal xam ni fekkoon naa Waly Gàmbi mhm. at mu jot nag ma dem Gàmbi waaye ren nag li tax dew ma Gàmbi mhm. moom dama am fii ay programme yu bëree bëri moo tax dew ma non boo gisee ma lay laaj sax dañu gis koo xam ne muy Mami Evans organisé woon na fii foire ci CICES e ñu gis nga yor microcentral microcentral bi yor lépp moo tax ma jàpp ne buy organiser Gàmbi di nga dem moo tax ma laaj waa xam nga nit ki. soo ko dee laaj danga koy laaj ci lu xam. man yëgu ma foiru sax mami Gambie. may dem Gambie waaw. yëgu ma foiru mami yëgu ma ni sax mami day def foire Gambie. <laughs> loolu lu mën a nekk waaw yëgu ma ni yëgu ma ni. mën a nekk. waaw dama ko yëgul rek xam nga xam nga xam nga bi ma yoree micro central bi tamit ci foire bi. waaw. danu euh, maa woo. ni ma kaay ñu liggéey. Mm-hmm. ma ànd ak moom di liggéey. Mm-hmm. Euh, yàlla dogal bi foire bi jeexee gisuma ci sama bopp moo tax ma toog jàpp sama bopp rek. gisoo ci sa bopp. déedéet wax dëgg yàlla. foire bi man ab géwél la. lu baax laay wax. Mhm. ci laay joxe départ ci laay faji soxla. heure bu ma xëyee sol sama dàll yi ku ma teral rek te yàlla tax. Mhm. te nu seq ko. Mhm. mbaa mu liggéeyloo ma war maa fay. ndax wax dafa metti ku la wax loo ba ngoon. boo wàccee war na laa jox lu jar wax ji waaw foire bi mu jeexee gisuma sama bopp daal ci foire bi gisuma sama bopp ci foire bi moo tax deewuma wax yàlla. Euh, trois jours yi ñu ci fa def nga yor micro central bi. fayuñu la lu raw trois jours. waaw dama dama doon ànd ak moom ci nit ñi. di dem fépp. moo tax waaye li mu wérte wër daal mooy. Mm-hmm. dabaay. Mm. ñu bëri war nañ ko balu àq. dabaay waaw. bëri war nañoo taxaw balu àq dabaay. lu tax xam nga lu tax. Mm-hmm. dabaay dafa tëgg foire. Mm-hmm. nit ñi jabale see ak nit ñi xam nga mais dabaay nit ku baax la borom këram di ko baax Arma Ndiaye mm-hmm. waaye ñu bëri war na ko balaax foofu daal laa mën a yem ci wax mm-hmm. waaw li ngay fekk naa ko Côte d'Ivoire ma organisé fa mu war ci kaan bi ci kan bi foire Côte d'Ivoire gépp nag génn fi ni nii tàllal ko loxo déjà bi dafa jog dana ko wax ne naa ak yow Côte d'Ivoire foire bi jeex tàkk mm-hmm. man Abdou Salam nag pare naa pour ànd ak moom dabaay ndax nit ku baax la. ndax man xam naa ni nit ku baax la te xam naa ne ku mu liggéeyaloo dana la fay te man ku may liggéeyaloo di ma fay lay àndal waaw. daa mel ni li la ma mi def da laa naqari. waaw mais nit bu dee bu dee wax. di coow di bruit yow foire bi xam nga ne neex na. bien sûr waaye foofu. ñëw di yor micro central di wax waaye dama doon woon nit di dugg fu ma am ak fu ma xam. ñuy ñëw ngir foire bi neex waaw. ngir ñu jàpp ngir ñu jàpp ci foire bi. waxuma taxaw di yor micro bi di wax di coow di bruit de ndax man loolu mën naa ko sama deret la ndax noonu daa fort te dama ko doon. Mhm. waaye dama doon dugg ci nit ñi. di waaw di wax. te nga xam ne damay man gone laa mais nag am na lu ma xam de waaw. sama maam. Mhm. Cheikh Issa da mhm. man dama am lu ma xam man lu ma bëgg mu neex mu neex. Abdou Salam laa tudd man maay jàmm. man boo xëyee te amoo amoo ma. Euh, da ngay am jafe-jafe. sa journée du waaw ndax may jàmm boo xëyee amoo jàmm Abdou Salam jàmm bi yàlla bi mhm. jeex na mhm. jàmm moom mhm. man ci boppam man maay moom boo xëyee te amoo ko da am problème moo tax que man lu ma gisul sama bopp du ma ci ci rey sama bopp te nag dégg naa am nañu teg seen foire génn nañ ko dëkk bi waaye foire bi dégg naa ña fa nekk ñu ngay jooy de <laughs> am na ñu ma woo de ñu ngay jooy dafa tëgg foire mu neex lool mbaaco dafa tëgg foire laa wax. yaa ngi dégg Abdou Salam. mu neex Mbaajo dafa tëgg foire mu neex lool. Ah, dabaay tëgg foire dabaay dabaay tëgg foire mu neex. Ah, Kaami Jaay la man sax maa ngi ci Kaami Jaay la léegi. ah barki démb rek ñoom ñoom ñoom le le barki démb rek barki démb mu kii ba dabaay damay ànd ak moom Côte d'Ivoire. nekk ci foire bi ndax DG Abbiyaay nee naa bi dagal billet su ma DG Abbiyaay dagalul sax ma dem ci kàng bi Iliman Lam. dina ma dagal bi ma. foire yi moom neex na barki démb rek les deux mille six def nañ ko marché Zeng centre ba euh, kii. Euh, mami mami bu waali mi ngi waaj a tëgg foire damaa jël engagement ma ni ma dinaa la fay xaalis. parce que alxuraanu kari. bii kon dana wuuteeg. mami mami ko mami ko waaw ah, foire am ma nee na ma damay lay xaalis bu bari jot na ma musal sax. ndax bërki dem yónnee na mu bëri ni jàpp ci. maanaam cin bu naree neex. bu baaxee bu baaxee dafay xëy. <laughs> waaw mi ngi noonu. mami Event sa rakk la de. mami sama sama lépp la. <laughs> ba tey jii may waxee nii su ma woowoon ba ma ñëw mu yëkkati. comp bu dëgër jox ma ma ànd nañu man comp rek <laughs> man bu ma dee comp rek maa ngi maa ngi ànd ak yow. dégg na la. ah bu jógee Gambie dina la man daal bu ma dee comp maa ngi ànd yow mu dul comp nag ndax nit ki munoo ànd ak ay nit. Mhm. début. Mhm. ànd ak ñoom ñu ànd ak yow sole la fu nu xam ñu yóbbu la fa. Mhm. lu nu am ñu def ko ci. du man dong de. bébé si xale yu bëri danoo xaddi. ah barke alxuraanul karim. non bébé si moom sonn na ci. waaye non dafa am loo dafa loo xam ne boo ko defee ren ba déwén mu jig la barke sëñ Fall na la ko jiñ waaye du yow billaahi wal kitaay wana abul kaam tamami xale la dafa amu avenir dafa dafa war a am avenir man daal maa ngi toog di dégloo rek man man moom man hmm. xuloo ma kenn xeexu ma kenn hmm. man lu ma la mën a wax tamit boo ma compalee ma ànd ak yow kontaan nañu waaw man comp rek ok kenn du ngeen mënta séddoo te Serigne Bambaye Baaw di taaloo Serigne Modou ma dafa ànd ak nit ñi mag ma taar ma ci kokki ma Samba gàdd daag bëri bàkk rek kënd bu yëf Serigne Kokki njagay sa jéem mi leer gi baawaan nañ ko ba màkk Abdoulaye Soxna Ñaan ma doon Soxna Ñaan ma taar ma mbég saa xel Fatma maa li dëgg daal njàng yi ma xurija biram Fatma ne raas da ko yendal joojam biram a yendu fa yendoo naan ay sa taas ko bokkul di ko ba jaari la ma sas ba jërë fay sax tëj te dee lay <laughs> jaay jàpp bi. nee nañ koy géewal ko ma wax ba mu neex kenn du ko dindi miis ay sa yaay miis moom da doon dimbalaate tey damay joxe ma ñëw ma ñëw yaay joxe wala ma doon koo xam ne bu toogee gën bu génnee gën tubarkàlla bi moo la tey ci suba dama ne ko damay bàyyi li may def yëpp maa ngi war a joué ci sa waaye dama ko bàyyi ndax nag place ba mu dëkk ku ñëw ne ana maam Ndiaye rek danaan la maa ko fi nekkal ku ñëw yor xaalis mu ne la dama lay yóbbu ba ci maam Ndiaye damay ñëw te ànd nañoo ay nit mu ne leen du ma leen jaay dama leen di yóbbu ci maam Ndiaye mu jaay leen loolu bëgg rek a koy fay yàlla na yàlla def jàmm seen ànd bi nag macha yow da ngay nangu xaaral kii wax nga doo ko nangu teraanga ji. borom xaas bu bari bi. asalaamaaleykum. ñeme ko. nga xam welcome. waaw doo wax ki mu wàññi rek. maam yow dafa wane yow mii dafa wane dafa waaye kii nga jàppanteel doful. déedéet kii nga jàppanteel doful. waaw li ci xale bi man la. bi internet la bokkul. Fatou la ak Fatou ñu ànd poti ba dara ñaaw xam nga ñun luñ daan ko wut. ba ñu nekk xale moo tax ñu teral yaay dabu ñaan dabu dañ màggaale ko waaw xale bi yaayam feebar magam dem uti magam ju bari jox su xëyee suba ne ko million la mu yónnee bu ko neexoon def lii xale yi def jënd parastamol jox ko mu naan yëfee xar na mu toppatoo ci soxlaam waaye defu ko de ekkati na yaayam teral na yaayam sama na yaayam ba yaayam nelaw waaye déggu nelaw. ki dëgër na bopp de. ko doon na sangu na waaye nelaw. dëgër na bopp.